te te ku amul bis amoo dara dara dara dara non mais man sama dënn bi weex na de cay la 27 xaaral ma jaaxaan nii ku amul bis amoo dara dara dara ah 27 wa. waaw lu ma demee noonu lu xew maa la fekk ngay waxtu rek de. teew kontaan. waaw lan moo kontaan loo. sama bis mooy waaj a ñëw to danaa ko to rajax. bis bi la kañ la. ah yow Fall Fall yow tamit Fall Fall yow tamit Fall bul fàtte le 27. le 27. ah le 27 ah, ñëpp a koy waxtaanee ñëpp a ngi koy. xool ko moom. kii moom ñaawaay la ko yàq. dafa ñaawaay ñaa mbaa doo ñëw le 27. le 27 lu fa xew. dégg ko mu naan lu fa xew. ah yow tardé nga quoi nga naan le 27 lu fa xew. Ah, le 27 ku fa ñëwul tardé nga. te waa woon wayu neex yi ñu naan waxunu ah moom la la illa te xale nag dañoo man fasaaxa nag muy naa la muy naa la way xaaka way xaaka xam nga dañoo man fasaaxa surtout seen anasi boobu ñu naan waxunu bun loolu benn affaire la ku lu lim nar a faa xew wuyu ma ne le 27 incha allah jox nañ leen rendez fii ci Ndaam al Asar lépp fay xewee théâtre fasaxa musaabaxa quraaniya lépp lépp lépp dafay am invitation yoo xamante ne gars yëpp ay ñëw nag koo jàpp ne comédie la rek day ñëw foofu day yëngu ku bëgg a dund mbekk mi rek le 27 ñëwal bul ma di dagg fa fa ndaam fa al azar ndaam le 27 day tooj wax naan fa ndaam fa fandaam fa mooy. waaw ñun bul jooy eh coupé coupé coupé wala